ñu ngi lay ñaanal nag yow foo toll te di la gaaral suñu bopp it bëgg nga ñaanal ñu di wax ne Cheikh musaa de lim tàllal wax naa ko démb si bi ñuy waajal fële ma ne lu jafe la def jafe gi mooy lan mooy li nga fi fekkoon muy aada bi la yàlla joxe ndigal na mu ko doon joxe gaa yu baax yi ëllëg ca ca démb ci fas daa bi maa tuumur gañ waxoon rasulullah yi wax ko sëñ Tuubaa mu tasaare dongo yi ñu wax ko ko mu daal di ne bu bu ko kenn xëyalati ci neen ku ñëwati laaj ko lim la yoreel ñëw leen ma xamal leen yàlla ngeen dem jaamu ji yàlla kooku li mu wax leer na kon nag loolu ku yàlla dimbale ba nga am ci yëg dëgg-dëgg da ngay sant yàlla boobu ma ne mbokk yi bu dee wasiila yenn nit ñi dañoo wax ne mooy jàng al ma ne kon ñi koy ñàkk danañ bari lool ndax téeméeri nit ñoo fekk doo mënoo caa génnee fukk ñu mën alquran kon ñi ci des li ñuy jàpp kon ñoom lu leen di jàllale lan la. bu fekkee dañoo wax ne mooy dégg sharia wala dégg fiq ma ne ba tey ñu ëpp danañ ko ñàkk ndax téeméeri nit ñoo fekk ñu toog ñu ci dégg sharia dëgg-dëgg di xam ko. duñ mat fukki nit ñak ca xam di jëfé ci biir fukk yoyu duñ mat juróom ñent nit manam duñ mat ñaari nit kon batay kon ñi ñak wasila dinañ bari té lool ndigalu suñ borom la dañ ko wara def li yalla diglé ñu war ko def nak su fekké ñi ëpp mënuñ ko am kon yalla kon war nañu xamné lam ñu diggal kon mënuñu ko kon laay ku laa nafsan gogu day daal di tàbbi kon yalla kon day tegal lu bakkan lu mënut te yalla du bakkan lu mënut da ngay woyof jël sa bopp jébbal ko jaam ngir yàlla jaam boobu omat la yóbbu la ci yàlla ma ne mbokk yi démb bu ñu waxee omat la nag bul yaakaar ne sëriñ bi day waaxu nga waaxu topp ci kawam du foofu boo gisee gaa yu bëri gëlëm buñ ne àgg ci yàlla dañuy téen seen digg asamaan sori duñ xalaat lu la fay yóbbu tañ jàpp na yàlla bëtt na asamaan yi moo tax ñu ne àgg man taam foofu rek lañ koy xoolee ma ne koo koy réere boromam dëgg dëgg dëgg ki jàng ba xam jàng lu ne te mun a saxal ne yàlla teew na fu ne waaye xam-xamam dafa teew mais àndut ak jëmmam ma ne kooku moo réer waa ji jàngee maçon ndakaaru buy ñëw fii du indaale dara lu du turee mën na ko bañ indaale sax te bu ñëwoon fii rëdd fi bâtiment kon xam-xam bu àndutoon ak moom du ko fi def kon xam-xam baak jëmm jaa ànd waaye nag neexut a xam neexut a xam de waaw bu kenn yaakaar ne daa yomb yombul de baax ci buumuk sun borom gii nga xam ne yàllaa waxoon ne واعتصموا بعبد الله جميعا ولا تفرقوا خمو نيت ني تي يالله رك لاني مونا داجي واي فنن فو نك ياب لوكو گم گم امنا كو فا لالو دار واي يالله موم بو ويدي ياغا تي بو گمي ياغا تي كين مونو كو موي كين مونو كو موي موك تي ادونا موتاخ بو ني عارف دو موي يالله مانا نياري انام ييب دوكو تي موي دو موي يالله جيفوت باي موي تهيت بودي موي تي ولوف xeer boo ko doon sànni bu mooyee dafay jaar fee la nga doon sànni jaar fee te mënoo jaar fii yàlla jaar fee mënoo ko kon nag ki daj fépp nekk fépp xam lépp ku ko teg ci benn béréb yow yaay premier kiy bokkaale yàlla ndax feneen fa am na ku fa ne te bu fa keneen nekkee ba waxtu woo nangoon a yàllaa ngi béréb sàngam rek beneen place ba am na ku fa ne kon ñaar nekk nañ fi suñ fekkee aarif biy dëggal kennuk yàlla nag ñoom ñoom daal la bëgg a wax ne yow mi nga xam ne xëy na majzub bi waxee bay fëgg dënnam naan moom moo yàlla ñu ne kon de ñoom loo gis ñu ne yàlla la ñoom dañoo samp yàlla yu bari ma ne déedéet xoolal ndakaaru bu bëccëgee boo fa woote woon dañ naan la mi ngi sedd guy te boo génnee ci naaj bi mu dara lakk ndax dafa tax muy doon ñaari jant ba tàngal fii moo seddal fële bi feeñ fii moo feeñ fële taxul mu nekk ñaar waaye dégg moo baax sang bi ñu ngi ziyaara si ñu ngi ziyaara si di yaakaar la ko maa ngi jégalu bu baax ci kàddu yu kawe yi te bari ndax damaa wut si kuy wut si war warta wax xanaa gannaaw boo laajee li ngay wut si rek dangaa war a nopp ñu jox la jërëjëf.